le commandant de l'agence 7, plus particulièrement en l'occurrence euh, colonel Koïta. Et véritablement, lorsque nous l'avons saisi, et pour lui dire que euh, notre institution, l'institution, la mairie de ville de Thiès, allait organiser cette nuit. Et elle a répondu à notre appel en vous demandant de venir euh, se joindre à nous, euh, aux populations de Thiès, avec tous les autres groupes, parce que la manifestation de ce soir regroupe toutes les communautés de notre pays. Nous aurons tout à l'heure nos parents catholiques, les différentes chorales, trois d'entre eux vont se produire ici. Nous aurons nos parents mourites, les Tijan, les Nyassem, les Laïen, Keneba Keneba, Ibadou Rahman, tout le monde. Parce que nous avons voulu placer cette activité sous le sceau de la diversité. Comme mënuñu lu Fanfar gërëm fanfare cérémonie kon ñi ngi gërëm le colonel Koita commandant de la zone 7 bi nga xamante ni lu ville voté rek mu ñëw bokku ko ak ñun waaye moom it lépp lu muy doxal rek dina ci invité la ville de Thiès euh, remercier les adjoints au maire sonn nañ fan yi yëpp ci organisation bi euh, remercier la commission religieuse ñoom it sonn nañ organisation remercier la commission culturelle nous sommes nañ di remercier aussi le cabinet plus particulièrement le professeur Babacar Mbaye Diop nga xamni mom euh, agenda culturel bi ci xam-xamam ci lañ ko agenda culturel bi ak wa culture direction culture les agents de la mairie nga xamni fan li ko tàmbalee ci secrétaire général bi ba ci direction yépp ñi ngi ci ndax rek cérémonie bi mën a rafet waaye gërëm yeneen groupe yi nga xamante ni yépp ci kër diine yi ñu jóge ñëw wuy ci première édition bi ngir jouer ak groupe yi jóge Dakar suñu mbokku catholique yi nga xam dañu ñëw pour dëggal ci waa Thiès waaye gërëm askanu Thiès yépp di ballu àq ñépp di leen bal àq di ñaan koor gi nga xamante ni nañ ko ci bismillah ñu jeexal ko ci alhamdulillah nuyu suñu mbokku catholique yi nga xamante ni ñoom jeexal nañ seen koor yàlla nangul leen seen koor seen koor googu yàlla def ci barke ndaje mi ndaje mu am solo ndax mooy première activité bu mel nii ci ramadan ci dans le cadre de l'agenda culturel ville de Thiès bëgg a boole communauté yépp ci benn guddi ngay catholique ngay jullit tarixa boo mën a bokk am na nooy doxale sa musique am na nooy woye am na nooy bëggale sa bopp am na nooy bëggale say taalibe ñu dajale ñépp waa kër maam El waa kër sëñ Xaadim Lo ngay dal tijaan murit di Baay di katolik ngay moxtar sidiin ngay cene ba cene ba ngay laayeen ngay ibaadu ñu boole leen ñépp ci ndigalu kilifa diine yépp ak kilifa aada yi ville de Thiès offrir leen loolu te ñu yaakaar ni première édition la deuxième édition bi dina gën a xumb gën a dagal le docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès mom mi agenda culturel ndax compétence yi nga ni ni code des collectivités territoriales moko ko jox dafa am ay loi bi ne lii ci sa ndodd mi la nekk culture ci la bokk kon su amee agenda culturel campagne ko ñu fal ko mu woo a bureau municipal am woo conseiller municipal bi laaj leen ci xalaat ñu enrichir ko mu jël ko teg ko ci loxol ku xelam màcc ci loolu moom lay wax docteur Babacar turandoom la mu jox ko ko Babacar mbay mu programme ko nuit sacrée bii nag nekk ci benn pàcc rek nuit sacrée bi benn activité la ci agenda culturel bi donc loolu dañ koy gërëm ci siggi bi mu ñuy siggil parce que tey bu ñu àndoon ak moom campagne ba pare volet culturel bi mu tek ko fële di lijeenti leneen kon su boba ñun dañuy gêné wu parce que dëkk bi tamit am na ñoo xam ne ku nekk ak la la intéressé am ñoo xamni religion culture mo leen intéressé donc bu ko ci jëlé tek ko ci tek ko suñu loxo né ànd la commission culturelle ànd ak commission religieuse ngeen liggé ko dañ koy gërëm ci loolu kon di ñaan yalla première édition bi yalla may ñu répéter ko plusieurs fois té dañoo am yéene ci dëkk bi am yéene ci réew mi dañoo laaj dëkk bi ñu jox ñu ko am na ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi laaj réew mi yow da ngaa bokk ci ñiy laaj réew mi xëy na soo prouvé fii te commencé nga ko comme ni ko oustaz waxe imam waxe léegi mën naa am nit ñi am yaakaar ne li ngay laaj àttan nga ko man nga ko te di nga ko def ndax li nga def ku ko réussir vraiment war a mën a réussir leneen ndax échantillon la rek la ville est un est un échantillon ou bien échantillonnage réew mi la rek. li am réew soxla ba mën a ñu soxeet jëm ci kanam mooy citoyen acteur mooy. citoyen boo xamante ni yittim mooy luy doxal gox bi loolu nag dafa mel ni eh, notre cher maire sommité la ci parce que boo ko côtoyé di nga xamante ni ku bëgg réew mi la waaye Cees ku gënal lépp moo tax ñaari fu ñu wooyee ci lu demee nii la ñu jàppoon dañ ko bàyyi ñëw wittali leen ñi nga dajale tey nag ñooy réew mi dafa am am at kilifa gu mag ci réew mi ni ma kilifa gu mag gi nee na nañu boole diine ji man ko dangaa juum diine ji moom lépp réew mi diine ji moom lépp ndax boo ci génnee diine lépp jeex ñi séq réew mi nag lu ci ëpp di ay jullit la ca des di ay chrétien sunu boroom mi nga xamante ni waxam moo gën a féete kaw moo ñu wax ni bismillahi rahmaani rahim wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dalika bi annahum minhum xasisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun yéen jullit ñi ñi leen gën a jege ci ko téere yi mooy ñu ni ñun ay chrétien la ñu ndax am na ci seen biir ñaar ñu set te sell lool ak borom xam-xam yu landi duñu rëy rëy mukk motax les tenons ne font pas de bruit kon jangou bi nañu ñetti ñi ngi fi ci riiw mi ñepp benn rek la ndax bokk te gi ñu joxante loxo pouvoir comme opposition comme société civile suñu yi ñu amul ñoom suñu symbole yi برنا لو يق ريومي كلي فوقو خامنتي سيد الحاج مالنينا ومن تعرض بالشعر الاولياء بالنحو او عرض قطعا بليا ومن تعرض بشعر الاولياء نينا منهم غاني باخني كوتي غارال دارا رك سلوون دانا لا مبوغل راوتين نك سين ديري بو باتاي نيغي سي ديري غاني واخني رك دي خاص دي ساغا دي دكل ليغ ني دكل دي بيتي ني نك ريومي امي جام تي لي jàmm dee su ko wax dañ koy jëf